démb bi làmb ji jeexee dem nañ jëlee Siteu bu Ngor waxtaan nañu ak moom ci làmb ji waxtaan nañu ak moom ci ndam li nga xamante moom la jógee waaye mbokk yi ñu ñu seet si tey Thiatou Rebeuss mi nga xamante ni moo doon jàkkaarloo démb ak Siteu bu Ngor Thiatou bas euh, waaj na komba bi am na fu ko combat bi tolloon bëggoon na combat bi euh, bëggoon na cee am ndam mu yóbbu ko fi mu toll fi fi mu nekkoon wala boog fu raw fi mu nekkoon mais démb ñu gis Thiatou Rebeuss bi mu ñëwee tuus na def na ambiance bi ma def sotteeku na ay gàllaajam mais Thiatou Rebeuss mi ñu xamoon gisuñu ko Thiatou ba ñu daan gis gisuñu ko mbokk yi dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi Thiat nuyu naa la. Ousseyn maa ngi lay fay onze bila bisimilah jërëjëfe borom Touba boroom borom jër jërëjëfe boroom Touba gàcce ngaala mbay affaire Mbacke gàcce ngaala mbay affaire Mbacke maa ngi lay nuyu naa tal jàmm di xam nga waa Rebeuss yëpp Dakar plateau bi xam nga waa Touba waa Ndiagen di nuyu gaa yëpp daal di ñaan sama sëriñ sëriñ As Mbacke bu gaawaan mu yàgg lool waaw di ñaan sama mu yàgg yàlla bàyyi ko mu yàgg fi loolu ba gën a fekk suñu njëriñ di nuyu suñu waa kër ñuy gaa daal waaw. wàccaa li métti woon na. trop métti woon na trop. waaw woon na ci wàllum entraînement wala ci ci ban côté. ci entraînement ci entraînement métti woon na trop barki alxuraan ndax mën naa ne sax combat bi li ci daj mu daj ci benn combat ndax tool moo nekkoon premier grand combat. Hmm, ajal mi nga moo nekkoon suñu premier grand combat am fu ñu jógee. Hmm. ndax mën naa ne tournoi deux mois liggéeyu ma ndax combat bi. deux mois deux mois yoo xam te ne concentré wu entraîné ñëw toog entraînement tëdd nelaw daw ma fenn ndax combat bi nga ci préparation bu metti gars mu lu méttee méttee métti. Euh, ñu gis nga jóge ci Liss Ndiago boobu tamit préparation boobu métti woon nga jëlee ci defet mhm. toog xaar lu xaw a yàgg tuuti. Mhm. jëlaat ki nga xamante ni nii mooy mooy mooy mooy Siteu bu Ngor mais ñu bi nga koy jël ñu ci bàyyi dañ ne woon yaa ko ëpp doole. Mhm. ñu ci bàyyi dañ ne woon woo ko woon jël da koy may chance nga jël ko. lan moo taxoon nga dugg ci Siteu bu Ngor. lamb moo ñu boole chance amu fi. Siteu bu Ngor moom mag fuuf. Siteu la mag. wallaahi la si moom mag. lii si njaago moom fuuf. chance amu fi sax sur gars yegg sama jàmbaar gëm sama bopp moo ma yegg fii mais ñooñu sax <laughs> yow man xale laa de. Hmm. xëy na trop sonal rek. wallaahi la si mais xale bu ndaw laa. man maanaam Ousseyn bu bëggee dégg-dégg man bi may soog am licence. Hmm. waru ma am sax licence. bu la neexee nga dem bàcc Cheikh Diop sama entraîneur dama cee xuloo ak moom amoon asu am licence mais dem naa ba jamono jooju ñu ma tolloon fii génération ñëpp daan naa leen ma pare amatuma fi adversaire a dem ci làmb ji bëre arène bi ma dem gars yi ma amu fi morom mais adduna lépp gëm-gëm la quoi mais Siteu sama ko la bëgg a xamal man li ma seetlu tuus mi dafa mel da nga mel ni répété tuus bi. dama seetlu booy tuus dafa mel ni da ngay xaw a yéex wala boog doo ànd ak ñuy tuus moment boobu da nga diis wala boog da nga wul tuus bi wala lan moo xew parce que man seetlu naa ko ci biir tuus bi nee naa caatu rëbës dafa répété wul tuus bi wala dafa xamul tuus bi wala caatu rëbës dafa nekku tey ci làmb ji. en tout cas répété tuus bi sax répété nañ ko de mais xam nga làmb moom man kenn mën doxal lépp quoi làmb làmb la quoi kenn ma doxal lépp mais répété nañ koo xam caatu rëbës dëgg koo xam caatu rëbës dëgg ak caat ba nga daal di ak caat bi ça fait loolu nag ñi xam làmb ñooy àtte quoi ndax tey jii ki ma daal dama mën a koy ñaanal yàlla ko ndam li jik ndax man du ma ñàkk ba pare di ñànki sax suurala sama gars yi hmm. mais xam caat ba daa ba bëre li si njaago caat ba bëre alliance bala caat ba bëre Ibamaar démb mais lépp làmb la lan mooy différence bi loolu kuy dund làmb xam ko démb kuy dund làmb xam nga ko mais adduna moo baaxoo noonu danaa fay fay ko est-ce que yaa hmm. fay fay ko mu ànd ak ay samay mbokk dem borom bi moo ne tey du baax ko doon may sa bopp dooy ñàkk ndax man ñi ma daa daan gënuma leen kon tey su ma daanee naa gëm yàlla dem defaruwaat te xam ne yoon ndaw du gaaw. mais bi ngeen dugg see ci bi digg yow bi ku ci nekk di def say gàllaaj mu yëngal ñu dem ba benn moment gisuñ la nga jug yëngu. nga toog sa sa coin rek concentré da nga doon concentré ci làmb ji wala dafa am leen loolu doon ci ci ci jumukaay li parce que gis nañ ko benn instant day jékki-jékki yi di supporter bégal leen ndaw ci stade bi xam nga mais gisuñu la benn yoon ci biir làmb ji démb. waa làmb la rek Ouzin làmb dafa garaaw quoi làmb kenn mën tax en même temps démb bi may génn yëpp na yow da ngay yëngal mais tey boo xaagee àndal ak dal làmb du làmb yëngal làmb bopp la doo yëngal sax mais yëngal bi dama wut noonu quoi ndax démb boo xoolee lépp dama war a nekk ci làmb yi am lecture de mhm. xam ne tey bisu bisu mag la waruma caaxaan mais làmb dafa garaaw quoi làmb la fekk làmb xam nga fekkoon ku ne da nga ñëw jóge entraînement doo takk gaal joo takk dara nekk sport naturel. mais làmb du sport naturel kon su ma déggee wax ji daal maanaam gàllaaj bi dafa mel ni dafa feeñ ci làmb ji démb. non gars yi doon seetaan xam nan gars yi doon seetaan xam nan dégg lu ma xam nga xam nga bu baax man lu ma capable ma capable mhm. man tey jii maanaam. man mais looloo tax ma bëgg ñu ñëw moo tax ma bëgg ñu ñëw ci ci ci yi. Mhm. parce que démb maa ngi gis ku ci commentaire yi gépp mhm. ñaan musique bi dafa ëpp. nangam nangam ku ci nekk yaa ngi wax ni nga ko gisee sa point de vue. nekkul ba moment nga sentir na man mii tey est-ce yaa ngi doon yaa ngi doon ko parce que man dama gis avec Leewtoo ngeen jàppante mu sañaxal la. nga hmm. dem ñëwaat mu mel ni daal man comprendre ma man ba ci commentaire yi maa ngi ko doon wax. ma dara ja si dama ngoo démb moo waroon dóor ma daanu. daf la waroon dóor nga daanu. ma daanu démb lu garaaw laa démb moo waroon dóor ma ne club. ban moment nga xam ne da la waroon dóor nga daanu. man tey ku ma xam man du ma tàppet quoi. man hmm. tey góor yàlla dëgg laa non su ma gisee scientifique bi ni nga doon waxee. Mhm. ni nga doon xam nga mën na mel ni ku ko yaakamti wala boo ku ko xiif nga ñëw ba ci làmb ji. caatu Rebeuss doxul. fa laay jëm man tey duma ma tàppet est comprendre man tey man bi may nekk xale soo ma dóoree boo ñëwee si wala may fayu yaa xam ne dama lay yot xaañ la wala mais damay fayu te dem caat dañuy dóor caat caat man da fayu man li ma gën a métti ci làmb ji loolu laa man xeexuma bëreewuma man même soo may daan xool sama carré ñi ma daan pour nga daan di nga ñu métti di nga bëri mais dem puusuma paasuma mais xëy na noonu la ko borom tudde woon dinaa comprendre mais là moo baaxoon noonu man tey yàlla xam ne bi ñu. lan lañ woon selon nga santé moo gis loxo yi wala tànk yi wala boog bopp bi moo nekkul. yow yaa ngi fa gënuma laa xam làmb. non mais xam nga tungu ne du teew tungu ne du teew. bu am na reporter naa caatu bés ko ba kii Modou Anda. ay moom ay Boucar bu TV caat xa caat ba ma xam ne ak caat bi bokkul. Mm. mais moo baaxoon noonu. mais xam nga ay Boucar ñooy wax ak. maa ngi leen nuyu baax a baax ñoom moo du ànd. mais démb bi nga dugg see ci digg géew bi abit sa diggante ak a xalaat nga dellu si waat mu dóor épékil épékil bi dalul nga ñëwaat mu si la xam ne daloo kot fii la xam ne dala sañ a xalaat. encore mais affaire ndax ma ne man rëppee woon rëpp sax rëpp noonu man fi laa xam ne woon rëpp. bi nga ñibbisee nga xam ne rëpp nga. wallaay laa xam ne fi laa xamee billaay wallaay taalaay rëpp yi ma doon bi mu ñibbisee après la séenat combat bi man caa xam naa ngi doon rëpp barki alxuraan. kon su ma déggee wax ci mooy. ba ci bi nga dugg see ci digg géew bi lañ formaté carte bi. dara doxatul man sama rakk yi ma ak booy yor sama gaal dina la wax man ne que du ma mais làmb moo baaxoon noonu quoi ndax tey jii ni ma jekko man. parce que ma gis moment bi nga daanoo. bi la jëlee ci digg géew bi di la yóbbu. yaa ngi xulli say bët yi di mel ni ku def dili ku tiit xamatuloo laa ngi yaa ngi laajte lan la ñu naan la man daal comprendre ma. man maa la man man xamul xew. man man comme ma daanoo ba ni ma daanoo démb boo fekkoon su ma teg la sama da nga may yërëm démb démb ci guddee wallaahi lancé sama loxo yi pour ma yëkkati problème dafa diis. barki sëñ Fallou pour ma tekki sama ngeen problème la démb ma ñëw gars di jooy jaar fi ma noonu pour ma tekki sama ngeen sama grand ma jàpp ma sama loxo tekki ma ngeen bi ma ñëw toog la ba a maa ngi gars yi di coow fii mais man xamul xew quoi man. bi ma xëy bi nga daanoo bañ tekki sa ngeen ba nga toog ba noppi yëguloo loo lan moo xew. wallaahi lancé comprendre ma. sama grand ñoo woo yenn gars yi expliqué leen mais làmb moo baaxoo noonu moom ni ma jekkoo man mënoon naa koo jekkoo noonu di ko ñaan la yàlla ko dem di jig mais làmb moo garaaw quoi mais man man mu nekk 100 pour cent ma ànd ak xel ànd ak sama conscience ma dig ma daan mais du yomb dem xool ba sumee ko ñu ñaar day xam ne doole sax bokkul. waaw ku la xool de macha allah dina xam ne caat moom. barke tuddul woon di law ndax gars yi dafa amoon benn wax bu ma dégg mu métti ma trop caat tudd ba amul doole du màgg loolu métti ma trop. dama doon waa cinq heures wala quatre heures sama engrais man seul li ma la wax jiili moo la mën a seetlu jiili jiili bu wasaare. Mm-hmm. dem dindi la su ma ñëw si sax dama mm-hmm. xam na xam ne man maa bëgg làmb gëm ko di dem ci dindi man kese man seul di ànd te naa koy def def lii sama ngëm-ngëm la quoi mais démb duñ sumee ko te contre li si ñëw gaa yi amul doole. Mm-hmm. loolu nag metti ma wallaahi laa see ma sacrifice lu bari ndax lambu dem liggéeyu doole. ñëw dëmb bi mu sumee ko woo fa di yàlla képp ku faral caatu rëbës jépp woo caat na ñëpp wax benn wax la dañ lay comprendre tey bi ma génnee ñëpp benn wax la tey li ma woo ci appel sax dañ lay comprendre kenn xamul nu mu toll wallaahi naa si ndax gars yi ñëw gars yi dafa ñu quoi ci làmb ji ñoom ñëpp sib nañ ko xam làmb di nga xam waaw mooy loolu ay business la quoi moo ci rax mais sëñ Fallou mhm. lan nga jàpp na démb moo la ñàkk loo làmb ji yàlla xam na ne man bi may bi mag ma mel ne biñ lay. bi ma dama mel ni comme xale fële laay dali. da nga oyofoon toolu dama oyof toolu. waaye bi ma waxee boo xoolee ban sa waay su ma sànni avant bara fële laay dali jëmay fële laay dali fële. ay éprikit xam nga man daal maa jege di sant ay éprikit <laughs> te doo xam noo doo xam naka waar quoi mais là moo baaxoo noonu te yi damay xam lu ma manqué ma dem defarwaat ko rek. di ko ñaan ndam yàlla ko jig làmb la rek lan ngay wax seetaan ci Wassare làmb ak ñi nga xamante ni nii ay fan su Thiatou Rebeuss lañ wala ay mbokkam lañ doon nañ ko jàppale ci combat bi waaw leen di jéegulu ñëpp ñëpp laa jéegulu ndax yow yaakaar na démb yaa ngi woon làmb ji suma jumul mhm. yow démb ñu def bu mhm. ndaw suñu premier grand maanaam di heure suma xamal benn laa laa laa laa gën a mhm. laa jógee nii te tey mën naa toog nooyal quoi mais déedéet du ma ko def amoon naa opté làmb Hmm. bëgg làmb mi ci dugg ma kenn mën naa ko bëgg gëm te li gars yi war a am war naa ko ci ma a ndax lu fekkee lu koy may muy fit ak jom mi ngi ci bëgg-bëgg mi ngi ci ñun yàlla mooy nattoo làmb mais dama ne la démb moom li ma wax tey laay waxaat képp ku xam caatu Rebeuss ku topp mbapat xam ne caat bee mooy loolu noonu ñooñu man samay supporter comprendre ma quoi samay supporter mais xanaa ña xamul caat mais man samay supporter xam ne daan dëgg bu nekkee pour nga daan ko du yomb quoi billaahi mhm. léegi da ngay da ngay da ngay toog defaruwaat wala boog da ngay da da da ngay da ngay laaj ci gars yi duggaat bëre. non il Ouzin il faut ma toog nu fa xam ne foofu toll li tubaab naa avant da xaw ma. reculer pour mieux sauter mieux sauter. Hmm. noonu la maanaam tey jàmbaar daw doole. Hmm. ba ñun tolluñu foo tey suñu carrière duñ ko sacrifice ndax tey li doon reyante yàlla dimbali na muy lan tur. Hmm. tey jii képp kuy dund làmb foo ne ci Sénégal ne caatur bés xam nga caat maanaam fa tur ba àgg. jëmm ji àggu fa yoo xam bu baax li may wax mm. te yàlla may tu ci làmb ñi ngi xam nga ñi am gaa ponkal fi nekk ñun li ñuy fekk ñoom fayeeku woon ko wallaay naa si xaalis jox ñuy fay ñuy bëree ñoo xam ne xam nga war na koy sant yàlla quoi kon tey jii nekkaatoon sama sama carrière dama ko sacrifice quoi te yamay toog xool li ma manqué ma dem uti ko même bu jëlee ma def deux ans indépendance damay lëlu wallaay naa si mais instant yàqatuma dara ndax tey jii boo xoolee métti na trop nga nekk xale nekk ci koñ xam nga li mm. tey boo jugee dëkk ñooy jug topp sa ginnaaw man si maanaam nekkul waa Rebeuss kese ñoom ñooy supporté. Mm. Jurbel Mbuur wala ñëpp ñëw jël ay oto barki alxuraan est-ce que mm. na trop ma teg la tey ñaari defet tey ma ci xale bu ndaw dina métti quoi mais da ngay muñ ba sa xol est-ce que comprendre. tey dama topp si yàgg may ree te ñuy fekk di nga di nga mer ngay ree fekk yow ree yi ree. réew foog ne yow da nga da nga kontaan fekk kontaanoo mais da ngay xam ne carrément yow lay daan mënuñ la. Mhm. barki sëñ Fallou ñu may daan ñi laa mënuñu ma. fekkee fit ëpp ñu ma fit sañ-sañ ma waxaale wu ko moom yëngal waxaale xaale ma ko mais lan moo tax ñu may daan foofu ma dem toog xool ko liggéeyaat ko sama kër dama ko saax saaxee damay dem toog mu jëree deux cent wala ma toog deux cent loolu nekkaat sama bopp liggéeyaat ba nga xamante ne tey jii su ma ñëwee nga xam ne caat ñëwaat na ci làmb xam nga heure su ci làmb nga xam ne boobi dafa ñëw damay day ay paa ñoom yow nga waane da nga osé mais normal man xale laa tax xale nga war a osé ci biir waane tey nit ki nga mën boo ko def boo ko mënee dañ koy war a boole waane. dëgg la loolu la quoi mais ma ñëwaatee nga xam ne caat ñëw na ko tey ñàkk naa mais ma fa ma nekkoon ba tey maa ngi fa tey jii bu ma juwaatoon ñëpp dañuy jug ndax man ñi may supporté mhm. maanaam duñu fan si club ku ci ne mën naa la kii diw la tudd fii mooy seen kër kii mooy yaayam famille lan maa ngi lan mbapat lan xaw man sama yoon dafa meti mhm. dama nekk xale di bëre mbapat nekkul ndaw bi may njëkk a dem mbapat bi may njëkk a dem mbapat ñaari nit laa la ñaari nit may demaat mbooloom di gën a yokk gars yi naa ñi naa mën na ko ñi naa mënu ko mais man maa nekk loo xam ne man su ma ko xasee ba gëm du ma déglu waxu kenn sama ambition sama gëm-gëm laa ciy nekk gars yi di ma ñaax may gëm di liggéey gënoon naa metti ko waa may xuus xam ne lu metti góor yàlla lay dal ba tey yàlla man lan laa fi def bay bëri gànnaaw combat sant yàlla tey jii rëbër semi réy réy wala Dakar Plateau tey jii boo nee boo lemee mbër force ci boole. Mhm. kon man maa ngi xeex sama drapeau. mais doomu aadama moom lu ñëw da nga koy yàlla xam ne lii nattu la maanaam du du neex continuer encore. Mhm. est-ce neex des fois mu naqari man sax su leen laay wax li may ñaan bu ci man yàlla ma yàlla ma yàlla may ndam. Mhm. tey mënoon naa leen fekk ma ci barke alxuraan même tey su man yaakaar naa jaam bi moom xam nga boo defee da nga war def lépp da ngay bàyyi borom bi mu def mu soob lu ko neex xam nga mais lu ñëw da ko koy sant yàlla. Mm-hmm. mais boo ñàkkee ñànkee day mel ni gëmatoo yàlla. dëgg la ma dëkk ci daanu day mën naa am ku ma bi ma daanu démb lan laa ci xalaat man tey bi may daan Alliance Baldé gënu ma ko ndey gënu ko bàyyi. Mm-hmm. bu Siteu bi ma ko daan gënu ma ko. kon da ngay andi loolu andi tey boo ko defee mm-hmm. xam ne tey kenn kenn mënu maa xañ. kenn xañu ma yàlla moom ma xañ kenn yàqalu ma loolu ma bëgg di ko bàyyi xel quoi yàlla bi ma daa may bi daa may caatu tey moo xañ caatu rëbës te dem naa fi mu war a dem ànd ak samay mbokk ñëpp gunge ma waa Rebeuss mais yàlla bu ne déet. barki mhm. sëñ Fallou andi du baax. dëgg la mhm. gis ngeen mbokk yi noonu lay demee euh, làmb sport la. ndax ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ku ci nekk danga ngaa waaj ànd ak say mbokk ñu ñaanal la ñaax la pour nga ñëw bëre. yàlla may la ndam mais nag mbokk yi ñaari ndamay dugg waaye benn ay génn mhm. benn bi doon génn démb yàlla jox na ko ki nga xamante ni moom a defarwaat a liggéeyaat ndax la boo xoolee mbokk yi bii mooy premier grand combat am dese na ko lu bëree bëri ci kanamam di ko ñaanal li ci kanamam daax li nga xamante ni nii moom la moom la jot a weesu xanaa ñu bàyyi la nga nga nga nga nga tàggatoo ñu toj ba beneen incha allah waaw di sant sama gaay yi mi nga xam ne dañu soon ndox caatu rëbës ma ñu ngi ko fekk nii. Mm-hmm. maanaam ñi ñooy caatu rëbës amaana caat ba dem ci géew boobu mais lépp ñii la. Mm-hmm. et saafu caatu rëbës. da nga leen fekk léegi ñuy réunion. pour gën maa jàppale. bu mm-hmm. la neexoon loolu mën lañ ci bañ a fekk ah, est-ce que comprendre nga daanu. dimanche leen di sa fan si kër bi daje ba staff bi réunion pour lan maanaam lu war a yóbbu ci kanam loolu yombul. te ku ci mel ne Baaraam Diop Serigne Saliou. sama waay la ciy jàpp rapide sama mag la rapide da ciy jàpp bu baax a baax xam nga lu ma la wax. Mor Diop aw Guèye maanaam ñooñu du làmb boolewuñu quoi ñun famille ko wax sànq rek ñun famille ko ci mel ni Madiaba Ogey maam Góor Samb moom it da ciy jàpp bu baax ak sama booy xës maanaam kooku mu lépp caat mooy dem fépp muy Cheikh Kane xës sama waay la sama lépp la mooy dem fépp ci caat kooku maanaam mooy caatu Rebeuss baaraam yóbbu Serigne Saliou bu hmm. ma la mën a xamal damaa juum di sant nag ku ci mel ni Xawa Abdoul Ba. jàppale ci combat bi xaw Abdoul Ba ma koy ñaanal moo xam li mu bëgg ndax moom social la fi nekkee ku ko woo mu jël la xam nga bu ko teg autorité am da nga leen di woo mooy loolu noonu. Mm-hmm. ku ci mel Tapha Mboup taalibe Cheikh aw ma fayam Tapha Mboup taalibe Cheikh jàpp na ci bu baax a baax a baax a baax isaan comprendre Alaaji Moor jàpp na ci Abdou Ndioum Abdou Ndioum jàpp na ci bu baax a baax ku ci mel ni Pape Gueye moom it jàpp na ci Góor Gueye ñoom Matar Kara maa spéciale nag Cheikh encore mu ko fàtte ndeysaan démb daa jooy bëgg a mais lamb noonu la kuy uti mooy ñàkk loolu may sa bopp doo doo ñàkk daal. Mm. ku ñu xam ne métti na trop mais heure bu ñëwee dañu bës Sëñ Fallou des nga daanu di nga xam say waay dëgg. Mm-hmm. di nga toll xam ne da ngay démb da ngay wéet. Mm-hmm. mais ñi la bëgg dëgg ngay gis mais lépp jàngat la barke Sëñ Fallou xam ne man xale laa quoi. Mm-hmm. na gaa yi génn jàppale ma. walaay lancim sama gars yi jàppalee amul lu mu ta am ci làmb ñun bu fekkee ambition bi mi ngi fi bëgg-bëgg bi mi ngi fi fit bi mi ngi fi kon ma wax sama mbokk bool bool yi nit ñun amuñu lu dul bawal tey jii olof Ndiaye li li profité naa ni dëkk Bandoum ni bokkam tey jii bu Dakar tàkk ñun bawal la ñuy ñibbi ne gaa naa guddi guddi bawal joxal naa leen sama bopp dénkaat naa leen sama bopp ne gaa yi dañuy jàppale te yàlla tax maam Góor Samba aw ma sa fay jàpp nga ci bu baax moo yëpp aw gay aw ma sa fay jàpp nga ci bu baax te dafa mbuub aw ma sa fay jàpp nga ci bu baax a baax a baax Idi Ousseyn lamb dafa metti barke Sëñ Fallou dafa metti te maanaam bu ñu bu ñu amee jàppale. Hmm. démb li dugut moo ëpp li nekk ci mbedd mi moo ëpp barke alxuraan ndax amuñu ay mooy quoi ñun amuñu hmm. ku ñu mën a may ay ay nangam ñu jënd ay billet sama reliquat laa jël jënd ci billet barke alxuraan karim sama reliquat man. Hmm. te maanaam ñun suñu reliquat boo ci jëndee ba lu ciy des. waaw des tuuti dafa metti nga toog deux mois liggéeyu maanaam yow li nga li nga liggéey lépp nga def ko ci combat bi dafa metti ba pare yow xeexoo bëriwoo mais dama bëgg gars yi comprendre ñu xam ne lii ñoom mooy daax nañ gars yi jàppale barke Sëñ Fall di sant nag waa Diourbel bu baax a baax a baax waa Mbour instant bi Ousseyn mënu ma sax wax man ba xëy ba nii nii ma ma damay imaginer làmb yi du ma nekk mën naa toog yow nii xam nga xel moo nit. Mhm. te xel boo ko roccee ci nit lu fay des. daaw desul ci loolu moom mu dal barke Sëñ Fall man démb gars yi dañoo xam man man du ma leen sax dégg. xel moo nit ama demee gars yi naa bi nga génnee da war a dem ci entraîneur bi mu lakk sa karaw mais xel bu fa nekkul li li li weesu weesu na bu yàgg noonu la fa demee da ba jaan ba mu ñu topp ci watat la la fa demee te tey sama entraîneur dafa la ko war ndax jug na bay police yi teekoo hmm. noonu la fa dama xam ne gars yi ñu comprendre quoi Ousseyn mais man demu su ma ñëwoon nekk dañuy bëree combat bu neex hmm. ndax tey si ta bu ngoor war a mën a daan hmm. champion la daan nag ay mbokk samay mbokk ndax tey ku jël sa avance ñëwul pour daanu es ce a comprendre nga. dëgg la ko gars di xamee noonu parce que kanam moo dàq yàlla ñu yàlla xam ne yàlla fi defee di yem. te xam ñun ay xelal mais yi gën a affaire yi métti na trop métti na trop te man tey jii mënumaa fëgg ku nekk ne la kaay jàppale ma am xam ne boo ci bokkee. boo xaar gars yi woo la da ngay ñëw jàpp ci xam ne caal mii tey ñun kuréelu rëbës ak boo la ñuy xam nga la ñuy représenté mais métti na trop nañu gars yi teg loxo Ouzin ah, da ngay war a génne sarax sax wala lu koy kulo kulo man na sax yu bëri yoo xam ne génnewuma ko da may woo génne nga sarax man ne la génne naa ko li des dama koy bàyyi yàlla suñu am na sa yoon bi ma ko déggee ma tiit xam naa li aw ma aw ma ko tey ma dem ci ne la kaay jàppale ma nga woo ma génne nga ma ne naa sarax bi yaa xam ne génnewu ma ko damay xam ne tey demaa ci maaraam mu laaj ma loo xamante ni tey man yor ma ko ma ko lii su ma fay ma def li ma bàyyi ko yàlla suñu borom lu ma yàlla may de ma sant ko yàlla daal voilà. gis ngeen mbokk yi la bu baax na yow sax daa nga ñu woo pour ñu waxtaan ci combat bi Mm-hmm. ma ne da nga mooy comprendre ndax gars yi mënoon bëri na ndax combat am na fa xam boo fa jógee wax wóoru la da nga war liggéey ba gars yi bu kenn mi liggéey nga te yaakaar naa ne bi mu sumee ko kenn jéppiwu lay ñaan li nga bëgg yaa xam sama waay sama ndin nga barke sëñ yaa xam ne nga bëgg yàlla ko yàlla defal xam ne aar bi seen du asamaan la yow buuxonte mm-hmm. fu waaye taxaw la nga koy séen mooy li ma wax ba ñun sans yéen ñun duñu dem mm-hmm. bu ñu gaa yi xamee théâtre Wes grâce à yéen la ndax yéen la ñuy wane quoi tey jii bu ñu bëri di daan kenn wane wuñu kenn duñu xam. dëgg la yaa ngi daal mhm. yéen jàmm ci daal di sant waa réew si ñëpp nag bool bool fépp fu naa la gërëm naa la waa réew naa gaa yëpp. Mhm. gis ngeen mbokk yi noonu lay demee comme li may wax rek làmb gannaaw démb jël nañu surtout bu ngor tey ñu ñoo jëlee ki nga xamante ni mooy Thiatou Rebeuss parce que làmb dafa metti ku ci nekk di nga waaj ànd ak say mbokk ñii dinañ ci ñoo jàpp te boo paree amuloo lenn lu dul def lu dul sant leen gërëm leen ndax nit ku dul gërëm ku dul gërëm nit du ku ku dul gërëm nit doo gërëm yàlla ba tax na moom moo ngi sant bu baax baax ñi nga xamante ni jàpp nañ ci euh, xanaa di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci wasaare làmb jaa ngeen jëf